Diallo jaar ci Touba Kaolack เอามาเย็นเศษอย่างที่ทุก fekk yow chaque fois da ngay ñëw si li nga seetaan. foo jógee. maa ngi Colom Fall. Colom Fall. Colom ci Kébémer la. ok Kébémer ngay jógee di ñëw ah, di seetaan si li xam ne Oscar day plan. waaw waaw. ok yow nga xam si Oscar day plan. Oscar day plan moom neex na lool te dem fee andi suñu ok donc yéen da ngeen di jógee ba Kébémer indi seen artiste fi nga xam ne moo nekk Dakar fii si Oscar day plan. waaw. talent waaw ah, bëgg rek nag mu jël final bi ah rek ñu yóbbu ko Jolof yëngal yëngal ba mu neex yëngal ba mu yëngatu. dem yëngal nañ ko ba mu yëngatu yëngal fépp jël coupe ñëwaat fii. te dañ ko fas yéene jël incha allah yóbbuwaat. ci kàttanu yàlla ak ci barke borom màggal gi de. ok léegi yow ban message nga lancé waa nga xam ne yéen a ñëwoon émission ak ñëpp ñu leen di jaajëfal ndax sonn nañ trop donc saa bu démb si jógee rek ñuy si moom dëgg fa yàlla tamit ku baax la ku amul yëg la ku fonk la tamit dëgg fa ku baax la ku baax la ku ma bëgg bàyyi ko Serigne Fall su ma sañoon nag billaahi lépp lu fi lu baax rek dañ koy jël yóbbu. kon daal daal gis nga ne Oscar des talents waa Kébémer ñoo ko moom waa Kébémer ñoo ko war a tax na yow daal loolu nga xam ne wax. ñu ngi lay merci ah. donc gars nii lay demee saa ne dañuy gis ne ñi tamit laaj leen seen xalaat si li nga xam ne moo nekk Oscar des talents sama yaay yow gis ne léegi ngay jaay est-ce que mën nañu xam tamit sa xalaat si nga xam ne moo nekk Oscar des talents c'est bon challenge de Djilor est-ce que c'est bon Glorious FBI, est-ce que c'est bon léegi gars yi comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi fi nga xam ne moo nekk stade Marius Ndiaye gis ngeen léegi jël nañ public bi laaj leen seen xalaat ci li nga xam ne moo nekk Oscar des talents mais bu ñu jógee ci loolu tamit dañuy gis benn jigéen bi nga xam ne nee naa la bokk na ci li nga xam ne musique Sénégal la mais xale yi tamit dañ koy rey mu nekk Oumou Sow jaaf na fi lu nekk ay lim loo xam ne wuñ ko fecc fecc yu fi jaar yoo xam ne ñun ñu nga nekkoon xale dañ ko doon gis di di ngi lay nuyu maa leen di siyaar bu baax euh, Dakar Dakar live di sant bu baax a baax a baax seen initiative bi ñëw di jàppale talent ndax lii dafa am solo ci réew ndax tey lii ngeen def nii ministre de la culture waroon na ko def jël leen fay leen jox leen lu mat ngeen ñëw dooleel xale yi te loolu ñu ngi koy réclamer ministre de la culture bu bees bi xale yi gisaguñ la te sentir nañ la fi kontaan nañ bu baax ci seen teewaay. donc Oumou Sow si je comprends bien kon da nga bëgg a wax ne Oscar des talents autorité yi ñëwuñ def seen réaction rawatina ministre de la jeunesse ak ki nga xam ne mooy ministre de la culture. que culture euh, moo ëmb li ñuy def nii lépp kon moom dafa am solo. biñ ko falee yàggul wala dafa waaye dafa war a marqué empreinte am si Oscar des talents ñi ngi dem final dañu bëgg mu jàppale Mor moor jàppale xale yi ndax presque ay 15 millions lañ nar a dépensé na jàppale moor Mor jàppale xale yi ndax ñun ay porteur de voix lañ dañu war a wax ñu ñuy déglu waaye ministre de la culture man maa lay adressé parole bi bokk ak yow fi ñu nekk ñoo bokk fi ñu nekk jàppaleel xale yi s'il vous ñene ko déggandoo dégg ngeen Oumou Sow li nga xam ne message boobu la jox ministre de la culture mais Oumou ba tey dañ lay laaj yow tamit sa carrière ndax gisatuñ la te gis nañ ne dafa nekk léegi ci leneen gis nañ Oumou di woy mais Oumou fan nga nekk ak lay lan la Sénégalais di xaar si yow d'ici peu de temps. Oumou de xam naa ne yaa 5 mois de cela génne na fi son naan Messi te Oumou macha allah si conseil d' administration bu Sodaaf ci la bokk Ngone maa ngi koy souhaité happy birthday to tey la anniversaire am le octobre kon moom ci mu nekk moom. boo dul boo ko dul gëstu tuuti doo ko xam waaw euh, ñi ngi ci ñi ngi ci yu bari ci loo xam ne day jëmale culture bi kanam loo xam ne day jëmale suñu fans yu ñu bëgg kanam ñu ñu fan di roy ci ñun ci suñuy jikko ay jikko yoo xam ne ak ay digle yu ñu leen di digal ci loo xam ne ci seen carrière la ndax ndaanaan bu ndaw dafa war a fonk ndaanaan bu mag bu bëggee jëm ca kanam gars comme nañu leen ko waxee rek ba léegi nii rek dañu si nga xam ne moo nekkoon ñuy laaj ci icône yi léegi nii jug nañ si ki nga xam ne mooy Oumou Sow mais dañuy dem si ki nga xam ne moo waral lii yëpp mu nekk le promoteur de l' mais mu nekk un icône boo xam ne tamit bokk na ci musique gu Sénégal gëj nañ ko gis gëj nañ xam si lu mu nekk mu nekk Grand Mor Grand Mor ñu lay nuyu mais di leen delloo ziar baax a baax a baax di leen remercier et puis di di leen féliciter et puis di nuyu waa Dakar ba ñu la ba tamit yow tamit nga nuyu li nga xam ne ñoo nekk internetu Dakar live yi dañu doon laaj grand Modou bi nan la demee nan nga def ba indi lii. waaw bi déjà bii c'est la c'est c'est sa parce que la première édition amoon na daaw. sant nañ yàlla def nañu trois quarts de finale deux demi-finales et une finale donc cette année dafa am yeneen innovation en ce euh, am na création scientifique am na petit génie am na danse am na chant am na rap am na yooyu yëpp ak miss ak yëpp parce que dañu bëggoon dajale euh, toute la jeunesse sénégalaise autour d'un idéal parce que dañu seet ne Sénégal dafa bëri talent